siraatu siraataani yoon yaari yoon la hissiyun wa mahnawiyun benn yoon wa la nga cay fekk danga koy lamb daj ko wenn yoon wa mahnawiyun la danga koy dégg xam ko gëm ko sa leeri xol jàpp ko nga yaakaar ko waaxu jëm ci bii àddina la tudd bee àllaaxira la tudd la ngay làmb daj àddina la nekk mën nga fa lamb lu baax daj lu baax am lu baax doxak moom ca yoonu maxnawiya la nga xam ne da koy digg gëm ko yaakaar ko sopp ko say leer di la ca ommat nga waaxu jëm ci am ci ngërëmal yàlla muy am àddina am àllaaxira lu manu la waaye nag ma ngay manu ca jaam ya xellu yel nañu ca yàlla boole alxisiyu yoon wa nga xam ne mooy yoonu làmb daj huwa yoon woowa almawduuhu fi ahli dunya mooy yoon wa xam ne mooy bërëbu yoon yi ña nga xam ne eddina dong nga leen soxal ñuy wut lañu soxla ak seen fajuk aajo addina dong lañu ko yemale ñooña seen yoon mooy al yissiyu waaye baaxut nag ndax yàgg-yàgg dañuy dee wal mahnawiyu nag yoon wa nga xam ne al mahnawiya moom la tudd huwa yoon woowu al mawduuhu mooy bërëb bu sell ba nga xam ne li ahlil axirati fala xeli ña nga xam ne dañoo gëm addina gëm alaxira nara daje ñu ànd ca yoon woowa ba egg àjjana boole ci seen ak ngëm ëllëxira boole ci seen ak ngëm dekki boole ca seen ak ngëm taxawaay yomal xiyaam ak malayka ya gëm siraat gëm àjjana gëm sawara yoon woowu nag mooy yoon wa gën mooy ña nga xam ne seeni mbir dañ ca boole gëm àddina mi waaye gëm yàlla gëm àllaaxira gëm dekki muy taxawaayu bis penc man salakale yi siya képp koo xam ne nag daa ci yoonu làmb daj muy yoonu àddina dong dong dong yemale ci sa lépp kooku àddina dong dong ngay am ka yem àddina dong nag salima minal mahnawi yi du am lañu digge ca yoonu mahnawiya muy ginnaaw dekk kooku nag du ca jot ndax ginnaaw dekki muy àllaaxira ku ko gëm yaa nga tegu siraatal lazina ca yoon wa nga xam ne anhamta alayhim sunu boroom dina leen xéewal keroog dekki ay ma bëgg a leeral foofu ne wafiqnaa mahaha yal na nu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñoo jaar ca yoon woowee nga xam ne dañuy gëm bis yowmal xiyaam muy bisab dekki ba yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne am nañu bi kamali imaani ngëm gu mat sëkk amin